Swear kama jiranganya letra ini banjul. Boy ni. City vibes bini. Sumara di van bini. Zir. Sumara kaji T-Road bini. South bini. Central bini. Sumara ka letra paya dof bini. Pinya bini. Sumara kaji nak. yah be yayah ibuki dengan hamni yay ngayahu yay katiyah. Maik jira. Dengan rabisa dole la. Soko trae malamba la. Maisa motor motah mageda la sumara kaji dina la news ba pare rooba la soo ko sama def la malan ba rooba la suma raka la dóor ay point len ci melni rap mbala ah suma raka xanaa sa mer bi nak munta toga tooga nga la waaye moo sax si pa di pala pala ma jeda suma raka te rek nga xamne halis merna dina la toppa rubela fo duga ma duga fa fole fo ndukee fa kete fa te so cholle so sumara kaji ma chompilla letra e banjo sumara kaji man mai isi jilio aka money non as kodo langa lalake mol be balon na lo kondele yake mejira yadde Best records. Yo, Banjo. My things are going. This I now make a master, you know. EC Junior, the clan, Harris. Yes, yeah, my Harris. RGM Recording Studio. Harris, Harris. Yes, yeah, my Harris, Harris. Harris kuko amu dange chalit, chalit. Harris tana au ma bena Harris, Harris. Kan Harris, yes, my Harris, Harris. Yes, my Harris, Harris. Harris kuko amu dange chalit, chalit. alles deine Oma bin ein Harry. Kann alles, ja ich so mein Harry. Gibt nen Kuffi hey Jane, Gott am Gil Halis. Nicht sag ich fest und am Gil Halis. Chepe Yang ja ich seh ich den Gil Halis. Gibt nen Jigen falsch boy dem Bag wie Am na Gori si don Jane Gil Squad wie Kunfi Jabba, ma kër ndax ñàkk xaalis ku fi bugg a sax foog nga am xaalis amut xalel amut mag ñëpp a bugg a bi dena lu yaas foog ma fay xaalis kon xaalis mama taxa jub. jóg mama taxa jóg kon xaalis mama taxa jub. jóg mama taxa jóg xaalis xaalis yaay suma xarit xarit xaalis ku ko amut da ngay caalit caalit xaalis tana aw ma benn xarit xarit kon xaalis yaay suma xarit xarit to my heart it, heart it. Halis kuko amu tanga chalit, chalit. Halis tana au ma harit, harit. Kan halis, yes to my heart it. Kofi amut halis dun la bole silen. Nyaka halis tah nyu na amut im. Badola it, am na fenen fum kovin. Gis ne nyu nye me na buga halis. Politics ya na reobi, na yefi halis. Government bi deke dun yu mole sun yu muli game. Such a sàcc xaalis ko fi amut xaalis duñ la def ngay xarit gis nañ ñu fee yeluwaan dañ buga xaalis buga cop amoo loo cop ngir ñàkk xaalis buga teral ndey ak baay am amoo xaalis every ghetto youth try to find money if you don't get money you will not get honey nigga bul my téye di ma feel like bunny no this life is funny this life is funny xaalis yeah, yaay suma xarit xarit xaalis ku ko amut da ngay caalit caalit حارس انا او ما بنهارد كان حارس ياس وما هارد ياس وما هارد حارس كوكو امو دانا تشالد حارس انا او ما بنهارد كان حارس yeah, وما هارد Yo, it's your boy Harris, aka Money, known as Kodo. Yo, you know how to do it. You're representing to the vibe sound up to the fullest. Kaboom! Tell them.